salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen chaîne bi di Saint-Louis TV ñu leen dalal jàmm ci reportage bi nga xam ni moom lañu fas yéene def ak ki nga xam moo di sunu frère donc nar waxtaan li nga xam moo di euh, euh, affaire u bi nga xam jot na fi jaar mais moom nag basam xaw a différencier ak yi fi jot a jaar parce que moom ba mu demee yàgg na donc mu dund si lu bëri sunu liggéey nag mooy ñëw tey nar a am waxtaan ak ak ay laaj yoo xam ne dinañu dinañu dinañu xamal lu bëri balaa ñu taar dañ mu présenté wu nuyoo ñi nga xam ñoo koy seetaan frère ñu ngi lay waaw salaamaaleykum may nuyu uh, waa àdduna du nuyu waa Sénégal du nuyu képp koo xamante ni mu ngi xool émission bi uh, Cheikh maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bon man maa ngi tudd Adramé Diop uh, maa ngi dëkk Langue de Barbarie may may wax ni immigration clandestin mu nekk loo xamante ni dama ko dund. dundu naa ko euh, mais bi ma ko dundee en deux mille deux mille six ak léegi bon mi ngi bëgg yàgg bon yaakaar naa ne immigration clandestin yaakaar naa ne loo ko dund bu yàgg beeg bu bees beeg yëpp ñoo yam parce que li si clandestin moom ñëpp xam nañu ni euh, li si bees ak li si màggat ñoo bokk même même dund ndax ñoom ñëpp ñoo bokk même yoon même yoon bi ñuy jaar. donc balaa ngi sore xam nga yaa ngi koy léegi léeg muy euh, affaire clandestin beeg yooyu noonu comme immigration bi léegi. am na ñoo xam dañuy seetaan mais duñ xam exactement lu muy signifier donc est-ce que mën nga ko tas balaa ñu dugg ci waxtaan bi. waaw euh, immigration clandestin boo ko déggee mooy ki nga xamante ne maanaam xamul lan mooy immigration clandestin immigration clandestin mooy maanaam dafa am benn phénomène la benn phénomène boo xamante ne xale yi dañ ko jël mooy dañ ko jël di dugg di dugg ci gaal yi gaal yi mooy maanaam dañuy dugg ci gaalu looca yi ku ko xam am na ñoo xam ne ay projet lañ lay dugal. waaw parce que man bi ma koy bi ma koy dund ñu ma dugal si gaalu looco. luy gaalu luy gaalu loota. waaw mooy gaal gi nga xamante ni gaalu bant la. gaalu bant comme gaal gii ma toog ni gaal gaalu bant la. bu gën a mais mooy gën a rëy gaal gi moo ko gën a rëy gën ko mag gën ko yaatu gën ko ëpp jëmm tamit si gaal googu la gaal googu lañ ma dugaloon. waaw parce que gaal gi dugg naa ci euh, maanaam ñu jële ma ñu jële ma Saint-Louis lan ma jële ma dugg ci ba ma ca duggee euh, gaal gi euh, maanaam gis naa ni gaal gi daal daw na si biir géej lu tolloog deux jours si biir géej daw na si biir géej daw deux jours soogay yegg fi ñuy wax naan zone Mauritanie. ne mais dama bëggoon balaa ñu ñëw si ci ci ci ci départ boobu noonu balaa ñu si ñëw cest di dire euh, tey tey nan nga mën a tëb tëb rek nga toog nga ni man dama war a jël gaal dem c'est-à-dire fa laa bëgg njëkkee. doogay ñëw ci li nga xam ne moo di voyage beeg yooyu noonu c'est-à-dire la moo la moo la motivé woon ba en 2006 nga gis ne yow da war a yëg ci gaale pour dem waaw boo gisee en 2006 li ma motivé ba ma yëg ci gaale parce que dafa am dafa am benn phénomène boo xamante ne moom la gars di def mooy am na ñoo xam dañu nekk dañu nekk dañuy nekk bitim réew bu ñu nekkee bitim réew dañ lay envoyé ay ay message message yooyu ñu lay envoyé te message yooyu ñu lay wax ni la fii lii moo fi am ak lii moo fi am dëkk bi neex na dëkk bi nangam na dëkk bi nangam na léegi dama buggoon nga dugg nga dugg nga dugg ñoo lay ñoo lay pousser ba nga ba nga dugg si gaal gi en même temps beneen bi mooy nekkin bi ngay nekkin fii dafay nekk nekkin boo xamante ne dafay xaw difficile nekkin bi dafay xaw metti nekkin bi dafay xaw a tar da xëy suba pour nekk sa say besoin mais si sa besoin yi ngay nekk di di di faj si say soxla sa soxla yi maanaam du mat mënoo def lépp def mais est-ce que loolu raison la bu war tax soit ñu nekk à l'extérieur di la envoyer ay image wala soit nga nekk fii euh, dund bi xaw est-ce que raison la pour nga mën a jël yi dem ak risque risque si nekk yëpp yëpp. mais bon boo ni lolo ci man moment bii ba ma koy def ba ma koy def xaw moo ni maa ngi def lu baax wala maa ngi def lu bon euh, ba nga demee ba def ko ba dund ko ba si nga xam li def du raison loolu du raison pour le moment ni man ci man nekkul raison waru warum waru tax. Euh, mu mbir mi metti si man rek ba mu war a dugg si gaal gi mais ba ma kay def parce que xaw ma ko woon mais bi ma ko defee ba dund ko xam li si nekk si lay xam ne lii ma def kat nekk na danger danger la dugg naa ci loo xamante ni li ñu naan guuta goo xamante ni yow après boo xasee dem rek dem nga mënatoo mëna mëna mënatoo reculer parents yi daaw ñu yëg wala ñoom ñoo leen daan accompagner parce que am na ñu naan léegi parents yi ñooy accompagner seen doom yi non euh, man non non gëw ma lool gëw ma lool. ba ngay dem kenn la man may dem kenn yëgu ma ba ngay dem nan nga liggéeyantee xaalis bi nan nga paasee nan nga dugalee nan nga fayee bu mën a dem. waaw euh, man boobu jamono jooju yàlla def na ni euh, gaal gi nga xamante ne si laa yéegoon euh, bon borom gaal gi ki ki ki nga xamante ne moo moo moo tëggoon gaal googu bi ma toogee waxtaan ak moom daf ma xamal carrément ne ma exemple gaal gi cent mille francs ngay joxe mais man j'ai pas cent mille francs yoo xamante ni mën naa ko joxe aw ma ko mais Euh, mënuma léegi lan lan lan daf proposé lan nga war a mën a joxe yow loo xamante ne mun nga ko garanti ma ne ko man su ma bu fekk ne duwal nga ma si gaal ba ma yegg mun naa la boole koo xamante ne bu ma yeggee si jàmm moom dina yëkkati sa xaalis daal di koy jox noonu noonu noonu laa yéege noonu laa yéege ci gaal gi. léegi mu dàkku mu nangu ko nga dem sans autant say parents yëg ko. non après après nanguwul loolu. nanguwul loolu. léegi man dama dama dama dama dama mujj gi dama def sama stratégie ba pour yéeg si gaal gi pour ma yéeg si gaal gi léegi laa la bëgg expliquer man nan laa def ba yéeg si gaal gi ndax ba ñu si waxtaanee man a moom te d'accordul loolu léegi dama bàyyi ba après timis après timis parce que dama ñëw xool fii gaal gi nekk exemple ñu ne ma gaal gi mi ngi fii à côté fii la gaal gi nekk ma ñëw si boor tefes gi gis gaal gi di wàcc ñuy wàcce benn gaal léegi bi ma ñëwee gis gaal gi di wàcc ma gis ki nga xamante ne moo war yóbbu gaal gi parce que il paraît que amoon na ay bagages yu mu waroon yóbbu muy ceeb ak euh, dawlin ak euh, ay mbiskit la waroon yóbbu léegi bi ma ñëwee si waa ji mu gaal gi mun ma yow foo jëm ma ne ko man damay dem si gaal gi mun ma da nga fay man ko non fayu ma mais man ak borom gaal gi am na lu ñu waxtaan mun ma ma ne ko waaw mun woon nag baax na après bu muy euh, sóobee gaal gi man si laa yéeg léegi. na nga sàcc quoi. ah ba tey mën mën mën na nekk parce que tamit bon euh, nit dana dana dana dana dana def benn mbir moo xamante ni euh, mën nga wax ni dafa sàcc mën naa wax ni sàcc ma parce que man naa moom waxtaan nañ ci. comme na nga sàcc parce que moom waxtaan leen. waaw waaw ba tey rek naa wax ni bon dama teg dama teg sama stratégie laa teg rek mën naa sama stratégie laa teg rek. stratégie sàcc ma Ndiaye. <laughs> <laughs> non non non mënu ma xaw waxee sàcc parce que sama stratégie laa teg rek ñoo waxtaana moom mënu ma da dem man ko waaw damay dem mënu ma yéegal ma yéeg waaw ma yaay moom nekk ci gaal yi ne dafa waxaale ak waa ji mais moom waaj ji d'accord nu ko mu bàyyi ba guddi mu jiitu waa si gaal loolu sàcc la <laughs> mais mais nga yéeg si donc ba nga yéegee ba ni ngeen déparé ak li ngeen dund ci ci biir ci biir ci biir gaal gi loolu laa bëgg nga ñëwaat waaw bi ma. les conditions waaw mais mais bi ma ñëwee ba yéeg si gaal gi li ma dund si gaal gi. nekk na dundin boo xamante ne lu lu lu doy waar la. dund naa ci gaal gi lu méttee méttee métti lu tar dugg na euh, dund naa ko ci gaal gi parce que gaal gi euh, yéeg naa ci mu jóge fi minuit la fi déparé minuit une heure du matin la fi déparé gaal gi daw na ba ba ba ba bër set gaal gi daw na ko ba bër set bi mu dawee ba bër set parce que gaal gi euh, fi mu doon daw ci bir géej fimu mu daw ci bir géej manam dafa dépasser limite dafa rombu, dafa rombu route nationale li nane route nationale ci bir géej. Ah, géej dafa am route nationale. géej dafa am route nationale géej ni tali am route nationale Non la géej am route nationale parce que am zone bo xamanteni ne bato yu mag yi ñoo fay jaar fu bato yi mag di jaar ba bato yi xamanteni ñoy ñoy ñooy yab conteneur yi fofu ñuy jaar gaal gi ñëw dépassé jaar ci bir géej. bon xam nga ni gaal googu fi mu jaar danger la parce que di gis di gis vague yoo xamante ni da ngay gis vague yoo xamante ni vague bi day jóg plus de de de daf koy jóg vague bi day jóg plus de dix mètres mais maanaam vague bi du la du maanaam li ñuy wax naan vague bi du la fekk si si biir gaal gi mais boo ko gisee boo gisee vague bu jógee yow da naan vague bi si biir gaal gi la lay fekk si mais du ñëw mais day ñëw rek tóoj gaal gi gaal gi wàcc vague bi romb beneen vague ngay tourner gisaat beneen vague bu nekkaat ci kanamam noonu nga koy jàppe pendant quatre jours wala trois jours loolu ngay gis doo gis leneen loolu rek ngay gis dundu bi metti da ngay tooy xep sa sa sa yaram dara du wow mais di ngeen di ngeen am lekk bu doy pour bu ngay waree lekk parfois ma dégg aussi gars yi naan ci biir gaal yi da ngeen di gis ay affaire yoo xam bokkul du ay nit yooyu est-ce tamit ce sont des choses nga xam ne jot nga ko dund ci gaal waaw xam nga man man dund naa dund naa loo xamante ne kaa bu xaw mel noonu la man toog naa ci gaal gi koo xamante ne bu maanaam dañuy toog ni bëccëg bi di waxtaan man ak moom mais daf may xamal carrément moom si boppam daf may xamal carrément ni ma bu guddi jotee man duma fanaan ci gaal gi man ka yow fay fanaan mënuma sa kaw dëkk ba laay fanaan yi man ko dëkk ba kaw dëkk bi man ko loolu nan la ma nekke yow nga nekk si biir ndox mi pendant quatre jours ah yeggaguñu fi ñu jëm nga naan ma damay fanaan ci kaw ci ci ci kaw dëkk bi laay fanaan te dëgg la exactement bu ma ko xoolee ba ci biir su ma ko xoolee ba ci biir bu guddi jotee bu guddi jotee suma kay wër ci bir gal gi di wër ci bir nit ñi parce que gal gi dana ya plus de de person, personnes ben gal yab 100 personnes nga nga nga nga kay wër ci bir nit ñi bu ko jotee nga kay wër ci bir nit ñi do ko gis man duma ko gis man bala ma kay gis fajar jot fajar la kay gis suma ko waxe sa waay yow démb gis ma la ci bir gal gi mun ma waxoon la man duma ma ci gal gi ci kaw ci kaw dëkk bi laay fanaan mais loolu loolu nekk na lu doy war. aussi day am ñoo xam ne ni dee nii seen kanam ngeen jël sànni leen. waaw yow da ngay gis parce que boo gisee déegi gi xam nga dee la moo koy indi parce que dee gi dee da ngay gis ñu naan la nit dee na dee na dee na dee dafa am lu koy indi xam nga géej boo si duggee te xamoo ko euh, gaal gi dina daw benn benn moment boo xamante ne loolu muy yëngoo di jóg di wàcc di jóg di wàcc dafay mel ne ci yow sa biir sa biir butit dafa am luy génn nga mel ne kuy kuy bëgg après nga commencé wàcc. da ngay da ngay neer quoi. merci da neer da ngay neer voilà da neer léegi boo neeree dangay ngay commencé wàcc léegi wàcc boobu ngay wàccu léegi dara dara du génn dara du lu dul ndox kese ngay wàcc ndox balaa yàgg da ngay sentir ni yow yow boo wàccoo benn affaire dangay ngay da xool li nga wàcc boo ko xoolee ba si biir dafay mel dafay verte affaire bi verte wala mu jaune noonu lay mel léegi nag wàcc boobu ngay wàcc nag mooy waroon ngay laata kaaf ngay faible yow après da ngay faible. buñ la joxoon benn pot ndox ni la am naan ko doo ko mën naan parce que da ragal ne boo ko naanee da ngay wàccuwaat léegi wàcc boobu boo ko wàccee ba pare léegi après yow da ngay faible sa yaram dootu amati doole léegi faible boobu ngay faible da ngay tëdd da ngay ku sibiru ku sibiru da ngay ku sibiru léegi boo boo tëddee noonu léegi commencé nga faible mënul tool sa bopp dara parce que liñ lay jox mbiskit lan lay jox mbiskit nga koy lekk mais mais xaa yóbbu yóbbul yóbbu leen woon ay ay lekk ak yooyu ah man man yóbbu ma woon lekk ma foog na ngeen di ngeen di jënd saako ceeb dawlin yooyu yóbbaale dañ koy jënd. léegi yow boo bu lekk tamit lekk yaa ngi fa. mais lekk yooyu dafay tax ñuy wax lekk mais lekk yooyu tax ñuy wax lekk lekk goo xamante ne dañuy jël cere tàngal ndox. mais loolu loolu loolu. c'est-à-dire man li may njëkk wax sax mooy que mooy que man man du sax ku dem géej lan mooy yoonu sax yéen ngeen di tëb tëb parce que tey 400 millions ngeen di fay pour di vrai bu ngeen ko jël ngeen investir ngeen toog ngeen liggéey ñëpp xam ne dëkk métti na métti si ñëpp mais pourquoi pourquoi boo demee ba engagement wu nga ne xam nga pour dem donc donc da ngay loolu mu ngi si bàyyi xel lekk lekk yu bon yeeg ak lekk bi jeex na ak yu ne nga bàyyi xel parce que daanaa dégg naan ba da ngeen lekkal seen biir xam nga ndax la yow mi demoon xëy nga si wax dara man moom gisuma gisuma moom gars yi di lekkante seen biir man man gisuma ko ay am leen feeñ guddi gisoo ko man man man gis naa gis naa gis naa boo xamante ne gaal day daw si biir guddi ba ma xool sama ma xool sama sama téléphone bi ma ko taalee xool heure bi il faisait euh, trois heures du matin mais damay xool si biir ndox mi parce que fi gaal gi di nekk ndox mi boo ko xoolee ndox mi dafay ñuul dafay mooy gën a moo moo gën a euh, ñuul lëndëm luy lëndëm luy lëndëm ndox mi moo la gën a lëndëm ndax ragloo ndax raglu ak melokaan bi muy ndox mi. dara daaw leen feeñu. mais man gis naa benn gaal goo xamante ni maanaam gaal gi euh, zone bi ñu doon dawee gaal googu zone boobu la doon dawee mais benn nit benn nit laa si gis bu taxaw si gennu gaal gi yor la am torche mais gaal gi gisoo doo si gis nit man gisuma nit. mais nit kooku ngay gis si gaal genn gaal ga mu taxaw yor torche am di di nit di wax exemple dafay mel ni daf lay signaler pour yow yéen gaal googu ngeen yéeg noonu pour ngeen ñëw ci moom nit donc da ngay xam lan la mais yow doo doo ko wóolu gaal googu mënoo ko wóolu ndax gisoo nit benn nit nga gis mu yor torche am qu'est-ce que kooku est-ce que gaal la est-ce que nit kooku nit la mais yéen da ngeen continuer ngeen dem quoi du ngeen waaw dañuy continuer dem duñ ko wuyu duñ ko faale ngeen mais les seen dund bu jeexee na ngeen def. mais bu jeexee nu ñuy def parce que man yëg naa si gaal gi pendant six jours six jours gaal mon mën na yëg fa mu xam ah non ah, non ñoom ñu yore gaal gi di ko di ko di ko manipuler di conditionner pour gaal dem pour man euh, yaakaar naa ne ñoom xam nañu gaal parce que boo boo xoolee ni digante Sénégal Espagne fu muy jógee 1600 km. 1600 km. mais quand nga 1600 km euh, du du du du du deux jours du trois jours ci géej gi géej gi da ngay dem tu que changé mel benen mel mel benen melokan, benen tu lay mel. après six jours tu bu bi da def man biscuit mbiskit ma fa des dan lay jox exemple dan lay jox dix mbiskit dix mbiskit lan lay jox man bu ñu ma joxee sama dix mbiskit xam nga nu def mbiskit mu ne pas sachet par benn mbiskit par benn nga ni benn ñaar ñett ñeent ma yaay doo wuy fii nga am si nga am si dix ñoom six jours yi bu jeexee bu nekkee six jour bi lekk bi jeex mbiskit pas benn sachet euh, quantité bi quantité bi maanaam comme benn fukki dërëm dañ si génne dix jox leen dan lay génne dix jox la léegi bu la joxee dix yooyu yow yow dix yooyu yaa xam noo ko gérer pour lekk ko pour benn fan en tout cas da ngay lekk heure maanaam heure lekk moo jot dan la ko war jox pour nga lekk ak benn potu ndox bu ndaw nan lay jox léegi man biskin moom bu ñu ma ko joxee nga dem lu ma naan def parce que xam naa ne gaal ga amatul lekk damay jël biskin mi dama koy def à deux dama koy xar à deux bu nekkee parce que dix la woon bu ma ko defee. nekk vingt mu ne nekk vingt léegi ma jël ma jël ma jël dix yi def ko sama poche jël jël disi di ka di ka lekk benn par benn su ma lekkee tuuti lekk tuuti ba sama gémmi xaw am dara ma jël tuuti ndox daal di koy naan daal di jàllale am lu ma tëneer. mais yow jot jot nga egg. Euh, man dem naa dem naa ba seen ba seen ilu Espagne bi seen il bi nii bu guddi jotee damay gis lamp yi mais moment boobu gaal gi dafa dem ba mënutul dem parce que ñaari moteur yi yi amoon dañ paan moteur dañ paan gisatuñu loo xamante ne mën na leen mën na leen wallu mën na leen sobe gaag dafay puusa dawatul day yol noonu di dem mais île bi yaa ngi séen da gis île bi nii bu guddi jotee da ngay gis lampe di tàkk da gis teneer yi da ngay gis tout mais yow gaal gi mënutul dugg mënutul dugg ndax gaal gi mu commencé waat génn. na ngeen mujj def. ah lu ñuy def départ du ñu si gaal ba gis lu ñu wallu du si gaal gi ba gis lu parce que noonu laay toogee si gaal gi pendant cinq cinq jours yi ma dawoon ak trois jours yi ma yi ma jotoon toog si biir gaal gi mu nekk mu nekk ñaata jour huit jours. huit jours. après la ngeen ba ñu bisiwaat waa waaw léegi nag euh, dañu xëy benn benn suba nii rek. ma ñaar même mille rek ah. dañu nekk dañu toog ni benn jour rek. yeewu benn matin ay 9h ñu jékki-jékki rek gis marinu espagnol bi ñu seen que muy daw di ñëw. ñu siñaale ko bi mu ñëwee mu daal di day taf gaal gi bon am ñaari espagnol yu wàcc bu ñu wàccee léegi daal di laajte kan mooy capitaine yi foofu nag kenn nangu jël responsabilité ni may capitaine. kenn nanguwul jël sa responsabilité ni may nga jël ah man non non jël lu tax may jël ni may capitaine man du ma capitaine nan may capitaine. <laughs> ok mu gaaw. léegi nag après nag gars yi su commencé jël euh, commencé nañu jël di ñu yeb di si kaw marine bi di ñu yéeg si kaw marine bi di ñu yéeg ba ñu jeex léegi ba ñu jeexee bi ñu yéeg si marine bi nag fekk nañ fa ñaari naar naar yoo xamante ay homme euh, de tenue Maroc Maroc la ñu nekk ay homme de tenue Maroc la léegi nag il paraît que naar yooyu. moo tax léegi marine bi fekkul daf la waroon dugal ci zone Espagne bi dootu la dugal daf lay génne léegi nag après nag si lañ jël nag génn ñu dugal ñu si zone Maroc bi waaw. nga ñibbi si quoi. après nag si lañ si lañ ñibbi si. léegi euh, yow en tant que jeune ban conseil nga mën a jox ñi nga xam ne ñoo jël ñoo jël yoon bi di dem ak yooyu noonu pour que ñu mën a gëm am métti na nag trop quoi mais ñu am gëm-gëmu euh, doyloog suñu boroom ba jéem a am ku leen investiral fii wala ñoom ñu bëgg jéem a rayante fii ba am fi lu ñu bëgg quoi bien vrai que nag fii métti na mais gaal gaal gi moom ñëpp xam na ne gaal gi moom du waaju quoi yow ban conseil nga am boo xam ni moom nga leen di jox man euh, conseil bi may jox jeunes yi lenn kasa laa la jox muy képp koo xamante ne jël nga sa xel def ko si gaal yi na ko teg si suuf ndax gis nga gaal yi ndox yi ndox mi loo ci xalaat lu ne mi ngi ci loo ci xalaatul mi ngi ci waaw jeunes yi loolu laa leen

bon nekk lu wóor danger la nekk lu wóor man daal loolu laa amoon lu ma leen ci conseillé bon daal euh, ñu ñu ñu jëfe loolu man nag ba ma ka ba ma ko defee man ba léegi ñibbi si fii jëlatuma sama xel di ko def si gaal yi defatuma ko maa ngi toog fii di su am di am sama sutura parce que boo xoolee ba si biir ka nekk fële man mi nekk fii yóbbu lu ma dara yóbbu lu ma dara mën naa wax ne yóbbu lu ma dara parce que maa ngi maa ngi maa ngi sant yàlla mën naa wax loolu bon nag bon ma leen koy conseil daal bu fekk ne dañ ko dañu jël seen xel pour def ko ci nan ko arrêté xam ne loolu nekk lu gan ñu jéem a wut solution wut yoon bu baax bi jaar jaarti daal loolu mooy dëgg. jaa ngeen jëf Dramé suñu xol seet na kontaan nañu ci interview bi kontaan ci li nga accepté ñëw toog ak ñun partagé ñun ci moment bi nga xam ne am nga loo leeral vraiment parce que man li ma saa su nekk rek muy man muy man Ndiaye muy keneen ak keneen ñun ñëpp bu na su sago bu ñuy dem dañuy jaar ci voie bu normal ñëpp xam nañ dëkk bi jamono ji metti na donc doy na waar ñëpp ko xam mais teewul aussi tamit ñuy jéem a euh, bu bu buñ demee ba def lu dem na nga ko teg fu leer quoi parce que dem dem boo xam ne yow fii déjà géej bi boo ko xoolee nii rek sax fii sax dal ndax doo gis dara tu vois donc ñoo ngi encouragé sunu sunu sunu moroomu jeunes yi xam xam nañu nag lu tax ngeen dem tekki rek tax ngeen bëgg dem mais nañu koy jaarale ci yoon jaarale ko ci fi ñu ko war a jaarale bi wala ñi nga xam ñoo yore yi war jàppale jeunes yi ñoom aussi nañu jàppale jeunes yi jàppale ndaw ñi xam nga bañ am benn par parloo kii sama parti la boo kii bokk sama parti kii laay jàppale kii du ma ko jàppale ñu bàyyi yooyu génne li nga xam mooy xaalis bi li nga xam mooy financement yi créé ñi nga ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañu te ñu am ko ñu créé entreprise dem récupérer jeunes jox leen ñu liggéey bu ko defee kenn dootu xalaat dem parce que bu ngeen bëggee tamit ndaw ñu toog il faut que ngeen créé loo xam ñoom ñooy mën a ñoom daan si a dóor waar toog man en euh, ko Mandiaye mii d'accord ko keneen keneen d'accord ko donc ñu ngi leen ñaax yéen ngeen toog gëm seen réew ngeen liggéey waaye aussi ñi nga xam ne lay war a jàppale nañu génne koppar gi te jàppale ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi jàppale askan wi bu ko defee ñu mën a toog gërëm nga xam ne ñoo doon seetaan boobu ba léegi di euh, ñi nga xam ne doon safoo seen chaîne bi Saint-Louis TV donc tey nag lii la leen defaloon indi leen benn euh, entretien ak ak euh, Adramé donc pour waxtaan li nga xam ne moo di euh, affaire clandestine bi donc bëri na ñu ngi jàll ñi nga xam ne doon ci ñàkk seen bakkan ah di ñaan suñu borom jéggal leen di gërëm bu baax a baax aw mu sell bi moom defar añ bu neex avant may ñëw ataay bu neex ah <laughs> ah, ah, ah, ah ma da koy gërëm non koy gërëm wuy ma eh, koy gërëm balaa ñu tëj aw aw mu bi gërëm naa ko pare waaw yow novice moom xam naa ko muy gërëm moom moom moom dafa garaaw garaawul mais koy gërëm <laughs> donc euh, Mandiaye moo nekkoon ci caméra bi donc ñoo ngi am mbégte bu baax a baax di leen jox tik ak daje ci yeneen numéro incha allah awa maa ngi lay siyaar di siyaar Fatou Mbaye yéen ñëpp ah ak euh, isa aywa taw féex